marche yoo xam ne namm nañ ko amal ci département yi nekk ci réew mi yépp lii nag am ndigal ak ñàkk ko la ñu yemale yu tukkee ci préfet yi di kàddu yoo xam ne Ousmane Sonko ba léegi moo ko béxal nee na nag nañu ñëw arrêté ma fi ma toog nii ndax Macky Sall mënta wër réewum Sénégal di politique politique gu rëy dem sax bay laaj ndax lajjul foofee ca diwaanu Sédhiou ñu di ko aaye mu amal ay doxu ñaxtoom ci bés sub fukki fan ak juróom ci weexu mars dañu amal marche bu rëy ci 46 départements yi nga xam ne ñoo nekk ci senegal ngir ngàññ yoon ni muy doxalee ak askanu Sénégal rawatina ñi fare ci kuje politique gi di leen teg loxo ci anam yoo xam ne teguwul fenn. ndax lan dañu jox nopp ak bët ki nga xam ne moom mooy njiitu réew bu senegal Ousmane Sonko ne askan wi génn leen ñu am ndigal wala déet préfet yi ak sous-préfet yi daanaka mag yi Sall dong nañu fi nekkal sikkim nañu gestu leen yóbbaale tax Ousmane Sonko ne Macky Sall lay waxal ne li nga xam ne nag mooy am ëllëg moom ci boppam moo ko sookee moo tax mu ngi woo bépp sénégalais boo xam ne yoon da la yitteel nga daal di jóg taraxlaayu bokk ci woote bi nga xam ne woote na ko. Ousmane Sonko di leeral ni wootewul benn yoon coup d'état maanaam ñu dem ca palais de la république fokk nguur gi rawatina nag guerre civile maanaam askan wi di jaamaarloo ak alkaati yi ba ay bakkan ci rot waaye nee na li nga xam ne ndey charte réewum Sénégal moo ñu ko may muy constitution bi mooy ñu namm amal doxab ñaxtu wala dajaloo mbooloo mu takku ñu bàyyi leen ñu def ko ni ñu ko bëggee. AGT News. daje bi doxoon ci diggante Macky Sall ak Marine Le Pen moom la ñuy waxtaanee ba léegi ci mim réew ak ca biti réew firnde gi tukkee sax ci ab député bu nekk fële ca France nga xam ne sunu naataango yi nekk ca RFI ñoo ko woo téléphone moom mi di conseil ci présidente bu groupe rassemblement national mu ngi yëkki kàddu di leeral weddi na nag ba mu set wecc ne Macky Sall dafa joxi koppar ki nga xam ne moom mooy Marine Le Pen donte ne sax ba fii ndayi mili ji di Marine Le Pen moomee yëkkiwul benn yoon kàddu ngir wax dafa jot am déet ay koppa yoo xam ne dafa tukkee ci njiitu réew bu Sénégal Macky Sall ci ab bataaxal boo xam ne niki dimanche bi ñu génn la ko jagleel njiitu réew bu Sénégal premier ministre ba woon di Cheikh Hadjibou Soumaré sàkku na ci Macky Sall mu daal di koy leeral ndax dafa jëli koppar jox ko personnalité politique bu nekk fële ca France loolu nag jural na ko tey ay njombe ndax kii di Hadjibou Soumaré woolu nañ ko foofee ca sûreté urbaine déglu ko gannaaw si gi ñu teg ko ci garde à AGT News. ci mbiri Hadjibou Soumaré boobee nañuy des ndax nag bàyyi nañ ko mu ñibbi ci njabootam moom mi dañ ko teg fi mu nekk nii ci contrôle judiciaire premier ministre ba woon fii ci réewum Sénégal ci atum 2007 jàpp 2009. lañ koy toppee mooy yëkki kàdduy tuuma teg ko ci ndodd du njiit réew bu senegaal waaye itam siwal ay xibaar yoo xam ne wérul bu sukkandikoo ci avocat bi koy layoon di maître Mame Adama Gueye ci fàttali Hadjibou Soumaré nag ab bataaxal la daal di jébbaloon njiitu réew bu Sénégal Macky Sall ngir leerlu ndax dëggalam deet ne dafa jël ay koppar yu toll ci juróom-ñaari ak lu teg jébbal ko ab personnalité politique française kookee sax ràññeeku lool ndax dafa bañ nit ku ñuul te nëbbu ko wote yi passé rek ca France wane na ko donte na sax ca bataaxal ba kii di Hadjibou Soumaré bindul tëram amoon na it beneen laaj boo xam ne samp na ko mu jëm ci élection présidentielle yu 2024 ndax dañ koy dàq am déet gouvernement bi nag boobook léegi ñu ngi tëb di dal ku nekk yëkki kàddu di dal ci kaw Cheikh Hadjibou Soumaré lu ne yàq nañ ko ko dem sax ba ñenn ñi di sulli ay mbóotam ak male yi nga xam ne jot na fee jaar ci jamonoy Alex Segura AGT News. ñu wax ci keneen ko am ay jafe-jafe ak wàlluk yoon muy Pape Ndiaye taskatu xibaar ba nekk ca Walf TV moom nag jot nañ koo tëj fi mu nekk nii jàllale nañu ko ca prison bu sebi Sébikotane bu ñu sukkandikoo ci enquête taskatu xibaar bi nag mu nga ca chambre de moom Pape Ndiaye lañ koy toppee mooy siwal xibaar yu wérul waaye itam gàkkal derub magistrat. mu mel ni sax da leen di cokkaas ngir yàq seenub der ak seenub liggéey ci plateau bu Walf TV le chroniqueur judiciaire bile dëggaloon ne lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti substitut yu procureur ànduñu woon benn yoon ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko di mbirum suite Beauté ñu daal di ko yóbbu ca chambre criminelle dossier boobu moo tax ñu teg ko loxo niki ci aljuma bale ñu génn